بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام من أمين كذباء سي جتاي بي ci béréb bu sell bi nga xamante ne bi benn pàcc la ci kaw suuf ci pàcc borom bi muy ay masjidu jaana ñoo mbégte bu baax tam di dajawaat ak ñaareel bi yoon suñu mbokk suñu sëriñ suñu jàngalekat suñu kilifa sëriñ sëriñ Mame Mbacké Abdou Wadoud mi nga xamante ne bii mën nañu wax ne kilifa la boo xamante ne ci may daal bi nga xamante ne bii mooy jàng ak jàngale li ëpp léppam ci la ko jëmale ci bay waaram guddi ak bëccëg muy koo xamante ne bii kenn du leen ko xam leen ak xam ngeen ko bu baax a baax ci liggéey bi nga xamante ne bii mooy Cheikh Mouhamadou Mourtada muy daare asani cay bëriyu santi ko ba yàlla dogal mu nekk fii tey ci Touba ci Ndaam Daaru Alimul Xabiir di jàpp ci liggéey bi jàpp mu am solo waaye di itam koo xamante ne bii diggante jàng ak jàngale ak gëstu ak def ay muhaadaraat islamiya ci réew mi ci xam la ñu xam itam ci bitim réew ci Tuubaa gis nañ ko yëngatu yi muy def ci daaira boobu tudd Rawdu Rayaahin ci jumaa ji ak ci bitti dëkk bi yépp kon mooy ñaareelu tey bu ñu dalal ci ñaareelu fan bi ci shahru ramadan al dem ñu yoon ak sëriñ Mbàkke Abdourahman Mbàkke ñu doon def ñun ci koor ak ate waxtaan am solo bi ñu fi defal tey nag ñëw ci tomb ñaareel bi sëñ bi ñu ko defal muy alwasatiya fil islam te mooy lu ca nekk lu ne rek diggu doomu mu diggu doomu nekk ca digg ba xamante ni ëpp du euh, kenn mu ca am lenn loo ca wax loolu loolu mooy islaam am wala ko islaam jàngale wala ni ko islaam ni islaam doone ne su ñëwee ci tam bi dana gën a leer waaye daal diggu doomu daal ci islaam la ñuy bi bëgg a waxtaanal kon ni ko def woon démb rek incha allah ci dala teewlu ak itam di topp euh, maanaam li ñu waxtaane ñu ngi ko a tasdil ci tasdil électronique ak tasdil mën a jël itam ay maanaam zakira nga jël di bind pour man ci jël incha allah comme ni ko oustaz waxe mu xadaraat yépp dañ ko def mu nekk ci rajo bi nga xamante ne mooy UCAB FM ci ñu ci koy joxe joxe ci maanaam direct kon sëriñ ginnaaw bu ñu la nuyoo tasagal la ñu ngi lay ñaanal borom bi subhanahu mu taw feexal la ba yaakaar ji am ci yow ci thème bi ci waxtaan bi yàlla dogal nga def ko nu ko daan def insha allah wa def ci kaw jot bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ونغني بوكي تريب di len dokkal ci koor yi ñu dugg bi ñaan yalla itam ba leenu te lu ñu ci def itam mu nangul nu ko fulal nu ko lu nu ci am ci njuumte itam mu jéggal nu ko kon waxtaan waa ngi jëm ci diggu doomu diggu doomu ci lislaam ne ko Oustaz Muhammad waxe ni ko jàngale wala ni ko doone ñaar yëpp la lislaam da koo doon te bëgg itam julit ñi itam nekk foofa digg doomu mooy lan waxaale na ko bi muy bi muy ubbi waxtaan wi mooy rek bañ a ëppal bañ a yeesal mbir mi ne ci digg bi bañ a ëpp bañ a yees bu àggul dafa yees bu weesoo fi mu war a nekk itam dafa ëpp daanaka àddina lu ci bari li koy doxal jiggu doomu lay doon mbir bu yéesee rekk dana dana dana am sikk waaye bu ëppee itam dana am sikk lii jag ci mbir mooy mu yem bañ a yées bañ Di doom googu moom la sëñ bu mag bi di wax ci masaalikul jinaan bim naan wala takun mufarritan aw mufrita bal istaqim fi sunnatin wa aqsita bul yeesal bul ëppal waaye da nga sax rek ci yoon bi te maandu maandu gi mooy ëpp du am yees du am diggu doomu googu nag mooy lislaam ci boppam mooy màndargam lislaam lislaam màndargam mooy diggu doomu ci léppam yonent bi sallallahu alayhi wa ngi koy wax mi ngi wax ne diine jii kat ku ko sóoru ku ko sóoru mu daat la diine ju jàppandi la inna hada diina yusr wala nushaadda diina ahadun illa galaba ci sooru diine ji di jéem a taral doo ko àttan kon digg doomu gi mooy li màndargaam lislaam ñu bari ci noonu xam nañu xadis boobee ñetti waxambaane ñëwee ci kër ci kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci kër ay soxnaam bëggoon a xam yonent bi yan jaamu yàlla daal lay def bu faratay jàllee ngir ñu mën ko caa roy waaye bañ ñëwee soxna yi wax leen ñoom loolu daal tuuti ci ñoom ñooy lii daal taxutoon ñuy laaj lii moom taxut ñuy wax wax dëgg yàlla waaye nag yonente bi moom xëy na mën naa yem foofu ndax moom yàlla jégal na ko bàkkaaram yi jiitu ak yi mujj kon xëy na moom bu yemee ci loolu itam moom mën naa am dana dana yell ci moom waaw nun nun nag nga xam ne noonu amuñ njëgal googu nun lii tuut na ci noonu lii tuut na ci nañ seetlu lu lu lu lu gën a metti wala lu gën a diis wala lu gën a jafe ñu jàpp ne mbir mi foofu la nekk ci gën a diis wala gën a jafe wala gën a metti kenn ki ne man daal duma nelawati genn guddi guddi yépp damay fanaanee julli damay taxaw guddi yépp may guddi yépp damay fanaanee julli guddi gu ne damay taxaw damay fanaanee julli guddi gep duma ci nelaw kenn ki man dama dul denc soxna man mbirum jigen lay genn ci sama mbir baña a denc soxna kenn ki man damay dëkke wor ku ci wax na lool du lu woyof du lu yomb du lu noppale lu diis la waaye ñu jàpp ne diisaay googu ci la mbir mi nekk ak euh, jafe gi bi yonent bi ñëwee soxna yi ne ko ah diw diw diw ñëwoon nañ fi de laaj nu ñu wax leen nangam ñoom it ñu wax nangam yonent bi woo leen yéen yéen a doon wax nangam ak nangam ne ah, waaw mu ne leen nag yëf yi nekkul foofu maa leen gën a xam yàlla maa leen gën a ragal yàlla waaye teewut guddi gi danaa ci julli danaa ci nelaw koor itam léeg-léeg ma woor léeg-léeg ma bañ a woor ci li dul farat damay ci ay soxna itam ne nag lii mooy sama yoon ku bëgg weneen yoon bu sama yoon nag bokkul ci man xadis boobu foog naa ñu bari ci noonu xam nañ te boobu rek mooy tënk ne lépp lislaam koon diggu doomu la ndax ñoom ak xër moo leen dugaloon ci teg seen bopp lu diis yonente bi xamal leen mbir mu nekkul foofu nekkul ci teg sa bopp lu diis wala lu jafe waaye mooy tënku ci yoon wi te yoon wi nag ak diggu doomu la ak diggu doomu la doon nelaw sa guddi yëpp waaye itam nag dañ ci nelaw doo dëkke woor waaw nag da nga di woor léeg-léeg te góor ak jigéen yàlla leen sàkk am lu bëgg ci ñoom lu bëgg ci ñoom itam euh, kenn waru koo kenn waru koo génn ci mbiram loolu kon day wane ne diggu doomu mooy màndargam lislaam moo suub lislaam jëpp ba àtte yi sax am na ay tënk yuñ tënk yooyu day wane ne ci diggu doomu la war a tege atte bu bu ñuy at bu ñuy génne rek atte bu ñuy génne di ko génne ci alquran wala sunna rek am na nattuwaayu boroom xam-xam yi teg yuy wane na ci ak diggu doom rek la war a la war a lalu am na ñaari qaayda yoo xam ne ñu bari jàng nañ ko ad daruraatu tubihul mahzuraat moom lu siiw la loolu ak diggu doomu lay wane mooy ne am na yuñ tere ne yii dafa araam kenn waru koo def waaye bu nit demee ba ñàkk pexe ba ñàkk pexe ba bu ko deful mën a loru ñu may ko mu def ko ñu may ko mu def loolu ak diggu doomu la ndax bu fekkoon ne dañoo tënk nit ñi rek ne lii daal kenn wëru koo def rek mu jeex nit mën naa toll foofu bu ko deful mën na caa loroo waaye nag bu ñu ko ne boo àggee foofa nag may nañ nga def ko loolu ak diggu doomu lay wone du ak ëppal du ak yéesal mooyuñ ko ko naka jekk mu doon ak yéesal waaye nag terewuñ ko ko rek ba du ko def benn yoon it mu doon ak ëppal bu fekkee ñàkk gaa def da koy jural lor xaane da boobu kon ñu tënk boobu nga xam ne borom xam-xam yi tënk nañ ko day wone diggu doomu boo xam ne diggu doomu mooy mooy lislaam ci boppam beneen tënk am na tënk buñ tënk ne almashaqatu tajlibu taysiir mooy mbir bu demee ba diis a diis a diis a dañ ko war a woyofal bu demee ba diis a diis dañ koy woyofal loolu tam ëpp tënk la buñ tënk nga xam ne kon ku nar a nekk ci mbir bam àgg ci genn diis gi rek dañ ko war a woyofal waaye da ko woyof da ko war a woyofalal boppam wërta tegoo lu diis loolu rek mu wéy loolu lépp day wan ne kon lislaam ay àttam sax ci diggu doomu la tege duñ woyofal lépp waaye tam duñ diisal lépp bo mbir buñ ca digalee nit dara buy dem ba àgg fa foo xam ne nag ak diisaay bu ëpp lay doon dañ koy wooye faral nag loola loolu itam ab tënk la boo xam ne day wane ne lislaam ay atteem ci dugg doomu lay lalu ci lañ koy tabax waaye yooyu ay tënk la waaye mën nañ ko joxe ay misaal itam ci wàll yi nga xam ne ay atte am na ci mën nañ cee joxe ay misaal ci diggu doomu googu yi lu mel ne ci wàllu julli wàllu julli julli am na anam goo ci xam ne mooy gu mat anam gu mat sëkk mooy def ko ci waxtu yi defe ko ci anam gëm mën a gëm gën a mate foo war taxaw nga taxaw foo war toog nga toog foo war a sëgg nga sëgg loolu mooy anam gi gën a mat buñ naan taxawal julli loolu lañ ci jublu anam googu gën a mat nag nit dana dem ba du ko mën ñu waaye falal ko ko may ko mu def ko geneen anam boo xam ne du gi gën a mat waaye nag mooy gi jàppante ci moom loolu tam ak diggu doomu la ndax bu ñu ko digloon ci genn anam rek genn anam rek mooy gi gën a mat rek mën naa andil nit ñi ay jafe-jafe ndax nit dana àgg béréb boobu du ko du ko mënee noonu ci alxuraan bari na béréb yi wone jàppandal gi yàlla def ci julli te li ko waral mooy diggu doomu gi diine ji diggu doomu moo ko waral doonut lu yes doonut lu ëppal itam yéesut ci wàllu julli mooy newut nit ki rek jamono jone rek nu mu la neexee nañ ko jullee kon yéesu yéesalut ci wàllu boobu waaye ëppalut itam ba tënk leen rek ci genn anam ne nu man di demee itam del jullee nii rek loolu tam bu amoon ak ëppal lay doon waaye nag nee na dee leen jullee nii mooy ni gën a mat waaye ko dem ba mënu ko itam nag may nañ ko mu defe ko nii wala mu defe ko ne wala na ko mënee rek gis nañ ci li ñuy tudde salaatul xawf mooy bu jullit ñi bu jullit ñi di xeex ak seeni noonu bu julli jotee duñ mën a jullee ni ni julli gi gën a mat yi nga xam ne buñ nekkoon ci seen sago moom lañuy ñuy waaye yàlla may na leen am anam gu ñuy jullee waaye nag bu ñu demee ba loola jeex nag mu ne leen na ngeen dellu nag di julli julli ci anam bi gën a mat wa ida kunta fihim fa aqamta lahum alsalata faltaqum taifatum minhum maak wal yaxudu aslihatahum fa ida sajadu falyakunu min waraikum wal taati taifatun uxra lam yusallu falyusallu maaka wal yaxudu xidrahum wa aslihatahum loolu mooy anam gi mu leen may ñu jullee ko bu fekkee ñu ngi seen xel dalul waaye ba mu demee ba ca kanam nag moo ne leen nag fa ida qadaytumu salaata fadkuru llaha qiyaaman wa qu'udan wa ala junubikum bu ngeen ba noppi ci anam yooyu nag fa ida tma'nantum mooy bu ngeen demee nag ba tal ko ba seen xel dal ba nekku leen ci béréb bu ngeen di ragale dara moom fa aqimu salaa nangeen ngeen matal julli na ko jullee na mate fa aqim fa aqimu salaa inna salaata kaanat ala al muminina kitaaban mawquuta lu mel noon la waxaat ci suuratul baqara xaafidu ala salawaati wa salaati al wusta qaanitiin kon na ngeen ko def ci anam gëm gën a mate waaye nag bu ngeen demee ba tolluwaay yenn tolluwaay yi nag may nañ leen ngeen defe ko nu jàppandee fa in xiftum farijaalan aw rukbaana bu ngeen dem ba tollu digeenté bo xamné nak seen xel dalul kon man ngeen di dox sax di julli wala ngeen war la ngeen war sax di julli fa iza amintum bu ngeen demé nak ba seen xel dal ba amu len lu ngeen di ragal nak fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun ngeen julle nak ne len ko yalla jangale jangale won ta moy anam ko gëna mat kon day wone ne euh, diggu doomu feeñ na ci wàllu julli am na anam gu mat kuñ digle waaye du duñ la tënk ci anam googu rek nu man di demee léeg-léeg ñu ne la anam googu nag mënoo ko kon may nañ la nga defe ko neneen loolu ak diggu dóomu rek lay wane ci wàllu misaal rek ci wàllu julli ci wàllu njàpp eh, tiim tiim tiim muy rek laab it diggu moo ci feeñ ndax anam gi gën a mat ci laab mooy di ko defe ndox di ko defe ndox moo xam jàpp la moo xam sangu la mooy anam gi gën a mat waaye tënkuñ nit ñi rek ci genn anam googu rek dayal jàpp rek walla ngay sangu rek loolu bu ko bu ci tënkoo nit ñi dana metti ndax léeg-léeg yomb wala sax du mën a nekk moo tax mu am diggante nag yum leen may ñu defe ko neneen noo xam ne moo gën a woyof mu yoonal tiim tiim motax tax bi mu yoonal tiim ci alquran bi mu koy nettali waxaale na ci loola waxale na ci ne yalla kat beugalu len lu len di khatal luy diis ci yeen beugalu len loolu way ak jappandal lo len beugal ak itam rek ngeen lab lab gi nak bu ngeen ko mënee def ndox baxna bu ngeen ko mënee def ndox baxna way bu ngeen ko ni mënee wut mu wutal len neneen ngeen koy mën a defee rek la len beugal waaye bëggalu leen luy diis ci yéen bëggalu leen luy jafe ci yéen ba muy daaneel ba mu waxee ci wàllu jàpp ak sangu wax ne ku ko mënut nag na tiim fa tayammamu saidan tayiba famsaxu bi wujuhikum wa aydikum min daa teg ne maa yuridu llahu li yajala aleykum min xaraj yàlla bëggut di leen teg luy diis ci yéen lu leen di indil khat xat walakin yuridu li yutahhirakum wa li yutimma ni'matahu alaykum wa la'allakum tashkurun kon ci walu njabtit ak tim ak sangu feeñeel na ci mom tak ak ak diggu doomu ak japp ak japp ndam ci walu wor ko gi nek ni koor dafa wax ne ku fekke wero kor na wor loolu mooy ndigal lu mat li bu fekk weer koor na ko woor waaye yemut foofu rek bu fi yemoon tam man naa dana mën a diis ci ñenn ñi léeg-léeg nit dana mën toll foofu bu nekkoon waral rekk sañoo leneen mën naa diis ci moom moo tax mu am gërëb yooyu woor mën na faa diis ci nit mu ne ko boobaa mën ngaa bañ a woor te bu jàllee nag nga fay bi mu waxee ba ca mujj ga ومن فمن شهد منكم الشهر فليصوم تفنك ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر كوير دي بامو نيك توكي مننا باغا وور ف بو غانت لا داني مو فاي مو تكتا وانا لي تخ مو واخ لول لو تخ مو دوخالي نون من يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يالا اك جابنا لا لين بغل واي بغلو لين اك جافيل moo tax duna leen rek woor leen rek waaye woor leen bu ngeen demee ba toll ci yéen diggante yi mën ngeen bañ a woor waaye ba jëmmi jamono ngeen fay yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa llaha ala ma hadakum wala andakum tashkurun loolu ci koor la waaye ci wàllu jihaad jihadit feeñal na ci ak diggu doomu ak jàppandal diggu doomu ak jàppandal dañoo dañoo dañoo lëkkaloo dañoo lëkkaloo ndax diggu doom bu amee rek jàppandal am na bu amutoon ak jafeel mooy am walla boog ak gàttañ lu koo xam ne moom daanaka du am benn njariñ bi ca nekk dafa digle jihaad waaye bi ma ko diglee nag moo ne nag diine ji defa dafa lu defuma defa teguma leen ci lu leen di indil xat-xat teguma leen ci luy diis ci yéen wa jaahidu fi llahi xaq jihaadi fu waji tabaakum wa ma jaala aleykum fi diini min xaraj millat abikum ibrahim huwa sammaakum almuslimina min qabl wa fi hada liyakuna arrasulu shahidan alaykum wa takunu shuhadaa ala annaas فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير كيسنا نانا في تقو ملين تقو ملين تي دينجي لولين تي أندل خطات لولين تي أندل جفة جفة تي والو جوخي جوحي تي والو جوخي يتم جوخي da cee jàngale ak diggu doomu daa ak diggu doomu daa tàggit daa tàggitam ñiy doxe ak diggu doomu ci wàllu joxe da koo digle ne wala tajal yadaka maxlulatan ila unuqika wala tabsutha kulla albasti fa taquda maluman mahsura bul bul yeew sa loxo ci sa ci sa loos ku ko defoon mooy doo joxe dara ku dul joxe mukk kon nga xam daal loxo bi dafa dafa dafa dafa ñu koy wax dafa banque mu ne bul def noonu waaye nag it bu ko tàllal ba am na ñareet mooy dara dara du taxaw dara du taxaw itam bul def noonu mooy kon bul nay waaye bul yàq yàq mooy ki nga xam ne dafa dara du taxaw da day day yàq day pasar pasare moo ne bul def noonu bul nay waaye bul yàq itam kon ci diggante bi ngay nekk kon ci diggante bi ngay ne mooy kon deel def lu lu mat a def lu jar a def te yam kon bul nay waaye itam nag bul yàq loolu ndigal la walla ñu ne tere la daa tere ñu def loolu waaye daa tagg ñii doxe noonu bi muy tagg ñi doon ay jaamam te nangu nangoo doon ay jaamam mu tudde leen waa ibadurahman ibadurahman ñi doon ay jaamam te nangu ko ñëpp ay jaamam waaye ñi ko nangu nag di ko doxe ñooñu lay wax foofu melo yi leen di tagge boole na ci loolu bu ñuy joxe seen alal duñ jàq waaye duñ ngott duñ ngott mooy duñ duñ duñ duñ def lu yées duñ yàq duñ jëlef lu ëpp walladina ida anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu mu teg ca wa kaana bayna dalika xawaama xawaaman ji mooy mooy wasatiye gi ñuy wax diggu doomu kon bu ñu joxe lu yàq waaye duñu ngott itam lañuy def day nekk lu diggu doom wa kaana bayna xawaama ci jëflante yépp itam diggu doomu la ci digle may na may na kuñ tooñ mu fayu yàlla may na ko waaye itam xiirtal na nit ñi itam ñuy baale kon nit ku sañ naa fayu bu ne woon bu kenn fayul na ñëpp baale mën naa diis bu ne woon kenn bu kenn fayul na ñuy baale rek dana mën a diis léeg-léeg ndax dana am ñoo xam ne ñoom fayu mooy tax seen seen xel dal waaye it mu xiirtale nag ci baale nga xam ne ki nga xam ne moom mënut a ñàkk fayu mën naa fayu waaye ki bëgg a bokk ca ña gën nag moom day fexe di baale waaye nag du ci gañe gawut ñëpp ne leen baale rek néewut it fayu rek ay am waaye ñaar yëpp ay am ki mën a baale baale ki ca àgg gudd nag mën naa fay waaye buy fay itam nag mu yem te lañ ko def rek mu bañ a weesu lañ ko def wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma fayu na ca lañ ko def waaye nag ku ku ku mën a bañ a fayu nag moo gën ku mën a muñ bañ a fayu moo gën وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين بمن مني نك بني فيو ولا مجن كن فوقي تم وانا فك ديك دوم نيو رك نيبي بالي وكان فيو كان سنيو تفيو نحو بديك لون لول دنا ديس waye nak mayena fayu waye wonena nak bañu fayu mo gën ku ca mëna ag ag ci ko jëmoon tàgg itam nag sañ a fayu waaye buy fayu itam nag mu yem rek ci lañ ko defoon ci wàllu bor ak leblente wane na ci ba tey ak diggu dóomu benn nee na bor manees na koo bind walla sax moo gën moo gën bind koo gën ñuy leblante ñu bind ko wuti seere moo gën kon loolu la xiirtal nit ñi ñu di ko def waaye taxul nag mu ne leen loolu rek ngeen sañ a def teewul mu may leen beneen bunt itam teewul mu ne leen léeg-léeg man ngeen a bañ a bind bañ a am ay seere waaye ngeen am tayle ci lépp tayle fa dara ci lépp tayle dara jox ko koy lebal man ngeen sax bañ a def yooyu yëpp ak kóolu kóolu ay wóolonte rek dox seen diggante wóolonte rek dox fi kon gis nga maye na ñetti ñett yoo xam ne bu tënkoon nit ñi ci lenn rek mën naa diis bu demoon nañuy bind rek léeg-léeg ñu tollu diggante yooyu bind fa du yomb ak di wut ci seere du yomb waaye mu maye kon ñu def leneen lu mel ne joxe euh, tayle maye itam nag sax ñu bañ cee defante yooyu yëpp doyloo wóolante gu dox seen gu dox diggante jullit ñi rek laay gën a gudd ci alquran loolu rek lay wax ci wàllu bor bind gañ koy gënd ak seere sañ koy wutal ak bu bind mënta am ñu mën a wut ñu mën a tayle man faa am ak sax mën a àgg ci wóolante rek ci leble wóolu ki koy leb rek ba bindut wutul seere laajut ñu koy tay la tam loolu ak diggu doomu la mu bu tënkoon nit ñi ci lenn rek day diis bu ne woon nañuy bind rek ak di seere rek war bu ne nañ ko bind wut ay seere dana diis ci nit ñi moo tax mu maye ne nag loolu moo gën waaye bu ñu demee ba mënuñ ko it man nañoo def leneen man nañoo kii leb mën naa tayle dara jox ko ki koy lebal mën nañoo sax rek doyloo wala te gu ñu waral suñu diggante rek loolu ak diggu doomu la ci wàllu bor niñ koy niñ koy niñ koy saytoo niñ koy sàmme ba tey ci wàllu bor it feeña na ci diggu doomu ci ne kuy leb kuy leb daa war a wax ne damay leb ba jamono sàngam ba jamono sàngam bu jamono jo jotee tam mu fay loolu mooy cosaan loolu tam la digle waaye taxul nag mu ne loolu rekk mën a am kon mooy noonoo gën kuy leb na wax ne jamono sàngam laa fay te bu jotee na fay non moo gën waaye bu jotee it ci leble dañ koo xiirtal moom it ci boo xamee ne ki ko leboonkat amoon na yéene fay waaye daa mënut da koo xiirtal ci mu mayaat ko beneen dikk mu mayaat ko beneen dikk mooy mayaat ko beneen dele digg diggee woon nañ jamono sàngam jamono ju jot na mënut ko fay daa diggal nag ki leble na ko kon na nga ko muñalaat loolu lépp ak diggu doomu la ak jàppandal yëmul sax ci loolu waaye dana ko sax boo ko mënee baal sax nag baal ko ko far boo ko mënee baal sax baal ko ko wa in kaana du usratin fa nadiratun ila maysara ci amee bor bi digge woon waxtu mu koy fay waxtu wa jot munta fay kon borom bor bi na ko mu ñëlaat ba ba muy man ba ba jàppandi waaye sax nag far nga bàyyee ko ko sax moo gën fa an tasaddaqu xeerul la lakum in kuntum ta'lamun kon loolu lépp ak ak diggu doomu la ak jàppandal la ndax bu tënkoo nit ñi ci genn anam rek day day indi jafe-jafe bu ne woon kuy leb ku nekk na wax kañ la koy fay loolu rekkee tax boor mën a am dana jafe dana ñoo xam ne danañ aajowoo waaye nag mënuñu mënuñu wax ne jamono sàngam lañuy ñuy moo tax mu maye buntu buntu bañ a bañ buntu buntu baña wax kañ ngay fay waaye boo waxee kañ ngay fay mu jot ñu ne lu mu lu bu ne woon lu man di xew na nga fay léeg-léeg moom it amoon nga yéene amoon nga yaakaar ne dañ ko man waaye mu ak si mënoo ko mu maye foofe it ñu man laa mu ñëlaat soññee sax ci ñu bàyyee la ko nag bu fekkee mën na ko borom bor bi mën na la ko bàyyee sax moo gën ndax ki la doon leb am aajo am yitte bu demee ba waroon a fay mënut a fay boo demee ba xam ne kii kat ku aajoon ndimbal la bàyyeeku ko far bàyyeeku ko ndax xel li ko dugaloon ca bor ba mooy day ku aajoon ndimbal ku aajoon ndimbal nag dañ ko war a dimbali kon ko lebalee te mënut boo ko mënee yow nga baal ko ko moo gën boo ko mënut a baal it nag nga muñalaat te bañ koo taxaw ne ko damay daal di fay loolu tam ci ci ak diggu doomu la bokk ak jàppandal yi ay misal la rek ci diggu doomu yi am ci l'islam nim ko waxo nak diggu doom ak jappandal daño daño lekkelo diggu doom gi moy wona jappandal gi mooy jur jappandal gi ndax bu amuton dañuy teunk nit ñi ci wenn doxin rek te wenn doxin man na dis man na dis ci ñepp wala mu diis ci ñen ci ay jamono wala ci ay bërëb diggu doomu gii nekk ci lislaam nag moo ko may muy diine ju mën a wéy diine ju mën a wéy diine juñ mën a jëfandikoo fu ne diine juñ mën a jëfandikoo ci jamono ju ne dañ daan wax naan al islaamu li kulli zamanin wa mooy jamono ju ne lañ mën a dunde lislaam bërëb bu ne itam lañ mën a dunde lislaam loolu li ko ko may nag mooy diggu doomu gi ci nekk ndax bu diggu doomu amutoon ak taral am ci bu boobaa dana am béréb yooyu duñ ko mën duñ ko mën a jëfandikoo dana am jamono yooyu duñ ko mën a jëfandikoo waaye jàppandal gi ci ne ak diggu doomu gi ci ne mooy tax ba jamono ju ñu koy mën a jëfandikoo béréb bu ne itam ñu koy mën a jëfandikoo ba moo tax sax ñu ciy dugal ay déggiin ay déggiin yoo xam ne ñàkk diggu doomu dacaane déggin yooyu du mën a wéy du mën a wéy bu ko nit ñi bëggoon a def sax mën nañ ko wax seen làmmiñ nii rek waaye du mën a wéy buñ koy buñ koy bàyyi duñ koy duñ ko duñ ko duñ ko tey ndax lu digg doomu moom daa mënta wéy moo tax yenn déggin yi am ci diine ci ñenn yi yenn ngër yi wala ñenn nit ñi dégg ni am ci yenn mbir yi bu dee déggin wu diggu doomu amul rek bu ko nit ñi bëggoon topp itam duñ ko man dañuy dem ba saag ñu génn ca te duñ duñ xam sax lu leen ca génne leen ca génne mooy daa mënta nekk daa mënta lu diggu doom moo mën a wéy loolu moo tax lislaam mën a wéy ci béréb yépp mën a wéy itam ci jamono yëpp kon ñi nga xam ne dañuy jàng lislaam war ko jottali nit ñi ak ñi ci toll sax di ko jottali nit ñi war nañoo bàyyi xel diggu doomu googu di ko jottalee noonu ndax noonu mooy tax nit ñi man koo jëfe nit ñi man koo dund bu ci diggu doomu amul rek duñ ko man a dund diggu doomu gim gim àndal moom lañ ko war a joxe moom lañ ko war a tasaaree ba nit ñi man koo dund nit ñi man koo jëfe buñ ci dugalee lu wuuteeg diggu doomu gi rek nit ñi duñ ko mën a duñ ko mën a nangu buñ ko nangoo ci seen làmmiñ it duñ ko mën a jëfe te lii solo si nag mooy jëfe gi lii solo mooy jëfe gi jëfe gi nag li tax ñu man ko mooy ñu joxe leen ko ni mu nekkee rek te ni mu nekkee mooy digg doomu gi nga xam ne moom na wàcce oustaz dama damay damay tàmbali tënk <laughs> léegi nag li ci des mbooloo mi seq ko euh, ni ngeen ko daan faral defe rek ku yokk dara yokk dara kuy jubanti dara jubanti dara kuy leerlu dara lu dara kuy leeral dara leeral dara yooyu yëpp mën na ci maa ngi jégalu wa salaamullahi aleykum wa bi ci kàddu yu am solo yi ci tënk bi nga xamante ne bii bu ama am solo la ci thème bi nga xamante ne indi woon boobu ak ñun doon ñu ci fàttali ak a jàngal muy rek diggu doomu gi nga xamante ne moo nekk ci islaam nga xamante ne yéppam rek comme ni nga ko waxee ci digg bi rek la nekk amul lenn islaam yoo xamante ne nit mën na kaa gis wala mu di ko yëg ba gis ci ak ëpp wala mu gis ci ak yées wala mu xam ci ak ëpp wala mu xam ci ak yées ci ñu ngi ko tënk ci mbooleem tàmbale ko ci ibaadaat yi lu mel ni koor ak eh, lu mel ni ki joxe mooy dundal ci wàllu alal lu mel ni ki itam atte yi nga xamante ni bi yu islaam la ak ni mu ko jàngale ci diggu doomu yooyu wax dëgg yàlla am na solo torop wane xanaa rek kon mbokk yi comme ni jotaay bii nii nga xamante ne noonu la ko sëriñ bi junge ci bi muy daaneel kàddu mooy képp ko